de la dernière sortie bi F24 def la dernière sortie bi def. Mhm. ou bien l'avant euh, l'avant l'avant dernière sortie place de l'obélisque mhm. mais Tcherno était là-bas. Mhm. Tcherno était là-bas avec avec euh, voilà avec les. Euh, avec les les leaders de l'opposition ña fon en fait dañ doon xeex pour que Macky Sall bañ troisième mandat. bañ bañ am troisième mandat il était là-bas à part Bobu. ban moo d'accord mais xoolal. attends laisse-moi attends wax non laisse-moi laisse-moi terminer. oui euh, le président Macky Sall ci ni ñu ko waxee aussi le cas de Ousmane Sonko si on parle sérieusement mosu ñu gis aussi Thierno al Sall def ci benn sorte wax. ah si ah si le président Thierno al Sall nee la c'est un républicain faralul kenn moom république ak li nga xam ne mooy yoon justice bu nga xam ne bu tëddee njaaxanaay moom loolu loolu la loolu moo ko intéressé. ci cas Ousmane Sonko non même ci cas Ousmane Sonko il a décrié. il a décrié le fait que. il a décrié le fait que nous euh, ñu ñu ñu barricadé pendant 52 jours il a dit que ça c'est pas normal les du les du sans pour autant euh, mu am décision de justice du yoon il l'a décrié il a décrié moo jox la il a décrié le fait que par exemple. Euh, euh, Khalif Khalifa, Sall et Karim Wad, nous jugement éclair Nous jugement éclair mhm. parce qu'ils il Nous ñu voilà out mhm. mhm. et maintenant la cour des comptes deful deful fait un le fonds force Covid 19 fonds sénégalais ñëpp a cotiser. ils ont bi dawal train jakarta bi ñëpp a ñëpp ba 1000 milliards nous, naan rester chez vous restez chez vous Nous respecter n'est-ce pas le mot d'ordre mais y a un trou de 6 milliards 6 milliards vous des comptes 6 milliards Vous indexé ministres euh, en fait que mais euh, ni am ko def peut-être mais ça c'est grave ça c'est très grave 6 milliards nga xamni ni ci tabax ay de santé yu yu mën euh, une partie par exemple des euh, des abris provisoires ah? des abris provisoires le Sénégal en a besoin ba minimiser bi dañu minimiser pour 6 milliards c'est rien. d'accord donc ça veut dire que xam mesurer à quel point.

ñom ñoo xol gis ne ki amna passé passé nek na ministre etc etc mais mais plusieurs fois d'accord d'accord non attends non non mais mais mais mais séntu nañu mais donc ñu koy souhaiter mu jàll parrainage mais tay ci Ousmane Sall buñ ko buñ ko bu ñu ko euh, calé won ci euh, parrainage est-ce que am nañu yaakaar donc bu fekkee Ousmane Sonko que jàll na mu accompagner ko jàppale ko non je ne pense pas que nous nous ñu pourquoi on a suffisamment de de de de parrainage. Et combat Ousmane Sonko. non on a suffisamment de parrainage am le presque le presque j'ai dit le double. de d'accord mais ci combat Ousmane en aucun cas nous nañu ñu téy, Nous ñu nous fu ñu laaj ñu baaxul problème bobu amul ñun koy li Sylla xam nga lu ñu décrire. est-ce que est-ce tamit est-ce que tamit non non est tamit yéen a ngi souhaité tamit pour jàll. non xoolal souhaité gis nga Ousmane Sonko question ñu avancé ngi koy souhaité. mu nekk candidat non attends ñu ngi ko kenn souhaité wul sa morom ñu koy ñu ñu koy tëj. no pas kaso d'autant plus que mu nekk candidat xoolal dama dama lay wax man sama dëgg d'autant plus que mais c'est un c'est un homme politique il est aimé par problème kenn situation bi bi bi mu nekk kenn ñaanalu ko kenn mais aussi mais mais mais aussi bokk ngeen ci opposants yi souhaité. le président ñun nous sommes le Thierno Alassane le président Thierno Alassane Sall est un républicain. ci loolu la ñu est-ce qu'il a souhaité Ousmane Sonko de candidat il n'a pas souhaité du ko souhaité jamais au plus grand jamais moom dafay souhaité képp ku war a bokk nga bokk mais aussi il reste il va il va toujours respecter la notre justice. bien que non attends bien que mhm. suñu justice ñu bëri ñu ngi koy décrier ñi nga naan tëddeewul jaxanaay dañ koy wax mais quand même. moo fi ne est-ce que l'affaire Ousmane Sonko jaay doole amu ci moo fi ne da ngay critiquer ba keroog système bii jógee. est-ce que tey Ousmane Sonko li xew lépp amul jaay doole. su fi système bii jógee système bii su fi jógee Thierno Alassane Sall ñëw bu ko yàlla mayee mu nekk président de la République moom la ñoo ñaan yàlla vous verrez il y aura un changement à tous les niveaux. d'accord c'est voilà un changement pouvoir exécutif. Mhm. pouvoir législatif. Mhm. parce que fii boo nekkee président daanaka genre demi-dieu ngay doon. Mhm. Hein? Euh, le pouvoir judiciaire dañ koy xoolaat ba nga ni Sénégalais bi dina am confiance ci sa justice. Mhm. donc Thierno Alassane Sall loolu la fi indi parce que c'est un homme de valeur. Mhm. donc loolu foofu la ñu le président di ko ñaanal yàlla may ko bu nekk président de la République. mais man bëggoon n'a vraiment. ñu wax ci d'accord c'est bon xam naa dañuy jógee foofu ndax boobu ba tey ñu ci te xam naa ne yi comme omo lu ci leer xam naa lu ñàkk ci yeneen plateau yi ci am exemple l'industrialisation du Sénégal donc c'est-à-dire que mënuma mënuma dem avant wax ci avant boobu aussi fi ma bëgg ñëw rek mooy donc donc booy euh, immigration clandestine ndax ñu ngi seetlu aussi que euh, xale yu bari ñu ngi commencé donc ñàkk seen bakkan ci yoonu tukki gi ñenn nañu tamit am nañ beneen yoon boo xam ne jël nañ amaana jàll nañ est-ce que tamit euh, fi Sénégal toll bu fekkee dañu bàyyi système bi di continuer Euh, suñuy ndaw di gën di mànkaan ci beneen beneen di réew ba ci ñak seen bakkan est-ce que fi ak at yi di ñew Sénégal mënu ci créer complication non je veux dire que la situation daf day empirer wu fii ba en tout cas ñi di jeexal dafay empirer wu. Mhm. yow gisoo chaque jour chaque jour xalé yi xalé yi ragal ragalatuñu dara nga tere leen ñu dem. lan moy cause bi. mais la cause c'est parce qu'il y a pas de boulot ils ont échoué sur toute la ligne seen politique de d'emploi dañ ko échoué c'est ça la réalité ils ont fait deux mandats C'est la deux mandats war nga ci mën a wane sa bopp te fooy nattee développement wu dëkk wala booy amorcer un développement mooy au niveau des jeunes est-ce qu'ils travaillent les étudiants dañu jàng ba am seeni ay je ne sais pas euh, doctorat et cetera dara les les les les nappkat yi xoolal nappkat yi nappkat yi nga xam c'est seen adduna mooy géej nappi am na benn reportage mo seetaan kilo waa ji dafa ni da ngay daw da ngay daw ba cent ba ba ba un kilomètre doo am benn jën alors que au temps da nga daan dem indi sa sa sa kii sa gaal bu mu fees del ñibbi si au moins somme bi ngay bi gën a ndaw bi ngay am mooy cinquante mille francs mais cinquante mille francs chaque jour c' est pourquoi ils étaient heureux amatuñu si amatuñu espoir le président Thierno Alassane Sall am na benn titre bu mu joxe euh, dafa sax yéwén parce que il a dit le l' échec de nos euh, le miroir de nos le miroir de nos échecs le mur la mer le miroir de nos échecs pour moi, de nos échecs de leur échec de leur échec pas nul. mais parce que tout simplement ils ont ils ont raté le virage un pays c'est des phases Bonne top, un mandat de cinq ans le deuxième mandat va déclencher une politique industrielle une politique industrielle c'est que de permettre d'abord aux locaux nous les sénégalais nous nga que bëgg implanter des usines créer les conditions pour nga taxes ba pare etc. leen ay terrains, fait, par exemple lan y a que des fruits des mangues etc. ay orange ah ay etc. xaw etc. etc. de transformation ñuy créé usine bu nga jus ah di jaay Sénégal bay exporter ba permettre aux jeunes d'avoir un emploi du par zone la lay wax demal Linguère Louga lan am élevage créer les conditions de mettre là-bas des usines de transformation par exemple pour que les euh, euh, mew nag yeeg mew xari ñu transformer en lait lait en poudre ay fromage etc. des produits finis mais nit da ngay am fulla ak fayda demal demal euh, euh, euh, Niayes zone zone zone des Niayes lan moo fa am pomme de terre soble ils ont des problèmes pour pour pour garder seen i seen i seen i ji ils ont des problèmes Des chambres froides. des unités de chambres froides nañ leen jox la possibilité lebal leen xaalis euh, lebal leen ñu wut ay chambre froide di ko fay ndànk-ndànk. mais foofu aussi président Macky Sall da ko liggéey na ci y a des am Mais DER. donc mais ana FONGIP ana il y a rien Ils ngi financés. non ils ngi financés. mais est-ce que sont ngi leen di je suis sûr et certain qu'ils ont demandé pourquoi pourquoi lolo amul c'est la seule possibilité pour pouvoir garder au frais pour pouvoir garder au frais donc euh, la euh, la, pomme de terre et, et les oignons est-ce que xam nga oignon bi rek Sénégal peut na produire la quantité bi nga xam ne la Sénégal soxla ba di exporter mais faute de faute d'unité de conservation de de conservation voilà dafay fait une koy ñuy gas di suul c'est vraiment triste nga jël par exemple l'agriculture nga xam Sénégal am un fleuve ay fleuve fleuve fleuve du Sénégal fleuve de la Gambie Hein? ndox suffisamment le soleil suffisamment les terres sont là amul benn relief amul benn obstacle mais mënuloo ko exploiter nos jeunes là qui chôment nous jël les on a de très bons ingénieurs euh, euh, agronomes, mais nous nous ñu créer centre de formation formez-les, gëmloo les vous allez devenir des millionnaires et c'est vrai en Europe les fermiers je ne sais pas les cultivateurs là les modernes là ñoo xaalis les fonctionnaires c'est des millionnaires c'est des milliardaires nga gëmloo les loolu wutal ay tracteurs organiser les en GIE vous voulez en GIE abal lebal leen xaalis ñu ñu wut ay tracteur ñu koy fay nank nank du deug après avoir bi ñu leen former ba paré légui maintenant ils vont travailler dañ ci gis sen bop ils vont transformer l'agriculture. hein au lieu que muy nek une une agriculture traditionnelle day dem ba nek une agriculture moderne di sur des hectares et des hectares on peut cultiver le riz ba am suñu autosuffisance alimentaire le président Macky Sall borol wax en 2017 dinañu am dinañu atteindre autosuffisance alimentaire en riz ana ah ana ah autosuffisance alimentaire en riz amul amul un échec total toujours tu es nous ñu koy ay donc on pouvait régler le problème depuis résultat final on est là et on constate les dégâts il yi dara Sénégal c'est un échec alors que la Chine nous sommes Chine 40 ans ci ginnaaw ñun niveau de développement 40 ans ci Chine c'est presque c'est la deuxième puissance mondiale même États-Unis dañ leen di deuxième puissance mondiale en Chine pratiquement tout le monde travaille mais loolu mën nañ ko bu ñu gëmee suñu bopp Cap Vert bii ñoo ngi ci rampe de développement la Cap Vert ñu ngi dem seen yoon n'est-ce pas ay Ghana ay même quelques les pays africains quelques-uns ñi ngi dem ñi ngi décollé dem seen yoon ñun Sénégal bi nga xam ne dañu doon dañu voilà les intellectuels ñi nga xam ne raffiner, raffiné dañoo am xam-xam on est là on marque le pas c'est vraiment triste et man ken rek la ci yaakaar gisuma xoolal man xooluma Silla xooluma ay affaire faroon ay ay farde je sais que Thierno Alassane Sall am na rigueur. d'accord mais rigueur bu en bu ñu encadré. pas rigueur pour nono non rigueur encadré. est-ce que comprendre nga. bëgg na Sénégal ndaxte wane na ko ku dem ba perte sa sa sa sa sa poste euh, ministre ak nu ak nekk ministre nu mu neexee. nga perte ko pour le Sénégal sacrifié wu sincèrement kooku dañ ko war a jox. dañ ko war a jox confiance jox ko suñu dëkk. pour que mu nekk le président de la république. bu buñ ko defee uh-huh. en en un xoolal un mandat laa leen may. un mandat le Sénégal va décoller. d'accord accord dafa mel aussi donc suma beneen ponk bi ñu bëggoon ñu waxtaan ci muy woy ci wàllu industrialisation wax ci lu am solo lu ci bëree bari xam naa ni aussi dugg nañ fa parce que donc euh, ci wàllu clandestine ñi nga xam ne wax nañ ci. jàpp nañu aussi euh, loolu moo leen jàppale éducation donc le président Macky Sall Sappo liggéey na ci ah liggéey bu extraordinaire quand même. Ah. non mais xam nga éducation éducation bi euh, déjà xoolal on note un déficit d'enseignants. mais jëf na ci 8000 ah. Hein? jëf na ci ay ay 8000. où sont les étudiants ils sont chez eux. Il y a problème on leur on leur parle. mais y a problème non on leur parle de xam nga. oui ma y a problème c'est le système système bi moo baax. il y a problème. xoolal xam nga si xam nga pourquoi y a problème. n'oubliez pas que donc xam nga pourquoi y a problème. c'est là xam nga pourquoi y a y a problème. ñun ñun ñun dañu yaakaaroon ni le président Macky Sall bu ñëwee c'est-à-dire day créatif un président da ngay créatif non non non il faut il faut faire autre chose il faut proposer autre chose des alternatives mais par exemple le système bi l'enseignement les contenus beaucoup de c'est bourrage c'est-à-dire beaucoup de leçons nga jël ni une nga créer étapes mais mais Kassé mais n'oubliez pas que pas que le président Macky Sall donc ci ñaari mandat yi. mais mais mais donc mais ci ci ay université de métier waaw bari na da ngay bac dem def aussi dem université def ay def ay mais aussi da ngay am bac en même temps aussi ñu orienté la université université de métier mhm. donc aussi kon tamit euh, formation professionnel ci walu aussi éducation le président Macky Sall liggéey ci lu am solo nak franchement. xam nga nangul na lepp mais nak xam nga y' a des étapes xam nga y' a des étapes y' a des paliers ah? y' a des paliers intermédiaires. maa lay xaar aussi sax. si ah, moins bu dee sax. si encouragement. nga le président Macky Sall non je ne dis pas non du ma nii liste. Hein. par exemple mom il a mis l'accent sur les infrastructures ay teli ay pont etc etc il a amna na lu mu def mais c'est à dire dafa inverser les priorités <laughs> il fallait installer ça après maintenant djublu ou bien def ko parallèlement c'est le fofu le fofu le la kii xoolal il y a des paliers intermédiaires da nga war ni euh, war wax ni enseignement bi bu ñu ba troisième niveau troisième nga gis ni kat ñi jaratul ñuy continuer. mais non non non bëriwul. mais am na si si non non non non. il y a assez d'écoles de formation. des universités de métiers. des centres de voilà des centres de métiers il y a ce qu'on appelle niveau CEP niveau BFM des centres de métiers sur l'électricité la couture la menuiserie attends la plomberie j'ai noté ça hein euh, la mécanique la cordonnerie etc. etc. dès la troisième monsieur Kassé c'est non non il faut il faut le faire de manière systématique ce suñu génnee attends ça ne suffit pas man gis naa ay ay jeunes qui sont formés formé à technique euh, en euh, technique visuelle ay caméra ay kii je pense c'est les ISEP hein. oui. mais ils ils chôment ils chôment il y a pas d'accompagnement bu yàggee sax dañoo désapprendre ils chôment te pourtant idée bu baax la ils chôment donc booy former en en amont. c'est-à-dire que nous ngi former mais dañu am aussi problème emploi. en problème emploi da ngay da créer les conditions. les conditions voilà les conditions nga kar leen bu ñu paree nga proposer leen dara. Mm-hmm. ñu organiser wu en un groupement nous ñoo xam nañ koy tuddee ñu jox leen xaalis ab lebal leen ñu commencé ñu commencé insérer wu ñi am chance dugg ci public ñi am chance créer seen entreprise nga lebal leen yombalal leen nag Taxi, yi dañ koy wàññi parce que c'est la préférence je veux il faut les aider la préférence nationale nga jàppale leen suñu demee ba xoolal ba commencé décoller maintenant tu peux serrer la ceinture du moins mën nga leen laaj mhm. voilà comme ça ñuy nga yokk taxi yi ak affaire yooyu donc développement noonu la c'est ça le développement donc ils ont raté ils ont raté ça Regarde, ma est-ce que xam nga y a une industrie bu au Sénégal Moi, l'industrie euh, je je je pas ma cinématographique mais non série là les séries les séries sénégalaises mm-hmm. est-ce que tu sais que Sénégal Sénégal le bëgg théâtre Et on on a vu que. mais non on a vu que sont en train de faire des bons extraordinaires. Mm-hmm. ils nous proposent des séries qui sont très intéressantes il faut tout, tout simplement les encadrer par rapport à nos réalités. voilà, à nos réalités là, là, aussi, en France, moi, je suis fait que c'est oui. donc aussi oui. que nous a des cinématographie, mais souvent, nous wow. c'est un problème, moyen moins de production. Nous moins de production. Aussi, voilà, parce que aussi. Wow. Donc, restauration, les transports, en même temps, motivation des artistes. Wow. Parfois aussi, ça pose problème. Et regarde, nous avons des acteurs, hein, acteurs, actrices qui sont, qui sont bien, qui jouent bien, mhm. mais au bout de quelques années, nous décrochons d'un seniors Alors les fixer parce que c'est un métier d'avenir. Mmh, mmh. Ana Nollywood, les acteurs Nollywood, Nigeria, mais ils gagnent beaucoup d'argent. Oui, Ana, Ana, Hollywood, aux, aux États-Unis, mmh. c'est presque l'une des premières. Même ici, même ici au Sénégal, la plupart des artistes gagnent beaucoup d'argent, mais le problème, c'est le problème, d'accompagnement. D'accompagnement et de régularité. Amoul. Donc, nous avons organisé, nous avons suñu séné métier. Nous nek un vrai métier loolu moy sen moy nek sen euh, carrière. y a ce qu'on appelle suñu yëf mais étranger ñoko non non non ah, waxuma loolu. c'est-à-dire des acteurs qui restent acteurs. Ah, ba maguet ci ah. ana ñom ana ñom euh, ki num mu ñom ay ñom Brad Pitt ah ah ay ñom Bruce Willis. ñom ñep ana football ba xolal dañoo maanaam football dañoo dañoo jouer film ba maguet ba mhm. nax mhm. ba nax Bruce Willis fi ni da nax daa mhm. ah? ana ñu c'est pourtant c'est des multimilliardaires. parce que source le de de de de de métier. non c'est dommage que voilà on pas pas épuisé tous les. Euh, toutes les thématiques. c'est ça mm-hmm. mais voilà je pense qu'on a dit l'essentiel oui c'est ça voilà. donc ñu un avec plaisir dans dalal monsieur Kassé responsable politique coordinateur départemental Aar Sénégal, n'est-ce pas hein? euh, Non, non, non, coordonnateur, coordinateur, euh, coordinateur de la cellule, cellule de communication. bu bu RV voilà Thiès département Thiès département donc de passage aussi ñuy y tamit euh, notre frère Massamba Diop mi ngi koy wax léegi donc aussi. Mm-hmm. Euh, mu nekk responsable politique en même temps dis nañu. aussi moi le coordinateur mooy le coordinateur. Euh, Thiès département Thiès département vraiment ñu koy nuyu bu baax. voilà mi ngi def euh, ay pas yu vraiment di def am solo au niveau de la de la RZ de manière générale. ça temps aussi ñu ngi gis aussi certaines couvertures médiatiques yo xam donc mom ñu koy def diko œuvrer ci côté zone nord ak final bi nga xam mom lañu ko parrainer woon. en même temps donc occasion la aussi ñuy remercier monsieur Madiakhate Niang donc mm. c'est le président du mouvement. And uh, soppi ties mom aussi mon école le parrain cadette bi amone qui ci zone 3B donc ci euh, match bu amone solo ci entre euh, defar R100 ak jant bi franchement aussi euh, accompagner len donc a aussi des enveloppes de 400 000 enveloppes de 300 000 et deux enveloppes de 25 000 francs ñu ko ci rafetlu bu baax en même temps aussi que bolé ko ay trophées en même temps aussi accompagner len ci ay médailles d'or ak médaille d'argent c'est des actions yo xamni c'est à saluer ñu leen di encourager bu baax ci taxaway yo am solo yi nga xamni ñu koy taxawu ci sport tamit di euh, remercier aussi suñu benen sœur nga xamni mi ngi sétane suñu émission di Diarriatou dara aussi nek responsable politique euh, ci taxaway bu am solo aussi bi mu am dembo euh, ci randu len donc créer aussi donc propre mouvement mais en même temps aussi mu nek des actions sociales yu muy jappalé nit ñi yooyu c'est des choses yo xamni c'est à saluer donc ñi nga xamni ngi Sénégal di nous askan bi ngi mais aussi mu plaisir xamna nga ndax euh, ak yow plateau day plaisir ndax li aussi xam ci solo. en même temps aussi nga nit ko modeste nit ko simple tamit bëgg télévision di TV parce que depuis ngeen ak coalition Art Sénégal ci les élections législatives yi jàll en même temps aussi donc bu ñu demee ci élection locale yi donc ngeen signé ak Thiès TV mm-hmm. ay convention di liggéey ak télévision bi en même temps am confiance de passage aussi ñu lay remercier di remercier aussi donc Thierno Alassane Sall ak suñu sœur Ndeye Yassine nga xamni mi ngi def à mm-hmm. côté moom aussi mi ngi bayé xel bu baax euh, émission bi euh, ñu lay sante di la gërëm bàyyi la nga voilà merci monsieur Silla. je pense que tàggatoo bi ah dama koy politique ah mm-hmm. damay wax li am le président Thierno Alassane Sall euh, c'est un homme très compétent. Compétence am da ko wone fépp fu mu jaar par exemple j'ai oublié l'année euh, tout juste bi ñu le pouvoir deux ans après je pense euh, bi mu ministre des infrastructures moi moo cette idée ingénieuse là jël Touba fii ba Touba Dakar ba euh, Thiès ba Touba Thiès ba Tivaouane def fa ay dans parce qu'il y avait beaucoup d'accidents def fa ay ay dans de 100 mètres 100 mètres zéro accident Lolou, il faut être intelligent pour le pour le faire mhm. mhm. le ñu artisanat demal ngaay ngaay am nañu formation mais mais mais doyul mhm. doyul man suma fa démé damay gis ay imper ay ay ay ay ay imperfection au niveau de la finition té aduna bi ñu toll manque de moyens aussi voilà fini manque de euh, donc il faut les former de il faut les former Aussi, leen wa waa turki gis dañ tabit euh, donc ñu daldi accompagner ben centre de formation bu nek aussi ci Sambour centre des métiers avec le CCI, donc avec ay matériels du Voilà, pour gars il faut les aider. il faut nous jox leen ay financement former leen. ci hmm. finition ci euh, euh, ci esthétique. c'est très très important surtout cuir parce que cuir aussi même si nous au niveau national avons un CAP cuir avons 10 personnes. voilà c'est pourquoi il faut créer des en fait des euh, des paliers intermédiaires des centres de formation domaine bu nekk il doo doo ragal parce que après dangay gis les résultats bu ñu leen formé woon ñu gën a xarañ ci finition ci design et cetera et ñu jox leen ay organiser leen aider leen jox leen ay financement ñuy rembourser yow tabaski tabaski ñaata xar la ñu rey Sénégal gàmmu màggal le Sénégal est inondé de peau. voilà mais lépp la ñuy jaay naar lañ koy jaay ay Maroc ñoo ñu transformé ko defal ñu ay marakis ñoo di ko jaayee. ay perte te aussi donc y a certaines machines yoo xamante ne cuir bi mën na ko jël def ko 10. voilà ah, donc tous il faut les aider. te nag loolu yëpp. mais fii dañuy xoos dañuy xoss dañuy xoss dañuy xoos xanaa liggéey bokay def ci son bu yàggee da ngay daw te aussi li xoss xoos mën nañ ko aduna bi dépasser na dépasser na fooy liggéey di son physiquement di di di souffrir non non non non non la technologie est là donc li ñu ñaan sincèrement mooy Thierno Alassane Sall nekk président coono dina fi jógee nit ñi dinañ liggéey Sénégal dina jëm kanam ay affaire u guerre da dafiy jógee parce que moom gëmul loolu ñun ñëpp les Sénégalais seront heureux au bout de de de de d'un mandat. merci beaucoup merci beaucoup. jërëjëf ñu sant bu baax euh, Seydou mi nga xam ne donc moom moo nekkoon ci rési ba ca xarale waaye di remercier tamit euh, bu baax. Euh, Rokhayas mi nga xam ni moo nekkoon ci infographe bi en même temps aussi nekkoon ci caméra yi di leen jox dig daje ba yeneen jamono ci yeneen beneen plateau spécial jërë ngeen jëf. merci beaucoup merci beaucoup. dafa mel ne aussi donc le temps que sama régisseur bi Seydou ñu remercier bu baax donc monsieur Kassé mi nga xam ne tey moom lañ dalaloon ci suñu plateau xam naa du ñàkk dara incha allah nañ ci ànd ak yéen ci nu mu gën a yaatoo ci yeneen.